yaa gëna gis yow ngay triant yow yaa ma nab yow yaay fenkat triant bi nga don na la rappelé do rappelé kenn ne bougez plus nak ne bougez plus bul bougez way may ma nga am na ma fa jégué ba lan la yow so ma jégué ma massacre la yow ngay triant ah. lan mooy problème. sama khalis la soxla tay sama khalis la soxla euleuk man khalis munoo ma fekk fi may ma ma tëdd ci wéru koor buntu kër buntu kër jipsar nga ne ma bank nga jëm. ma jox la samay vingt mille francs ba nga lay doog a teg bët yow doo sax. est-ce que jaawale woo man dinaa la jaawale yow. man di ma xool naan dama am problème may ma jàmm nga sama xaalis daal la soxla tey léegi léegi léegi léegi. dix-huit nga may jox sama eh, xaalis. mais c'est quoi tout ce bruit. waaye ban bruit wër di wayaan rek. aw ma lu ma wax ak yow man kii laay waxal. sëñ lan la yaa ngi may doog a nangoo sëñ bi tey. ba nekk te dañoo sama yoon dewu ci moo yor sama xaalis na ma ko jox lan moo xew. lenn dong moo xew kii fii la ma fekk buntu kër Jib Sarr ma tëdd ci weeru koor wi sonn bay bëgg a dee nag. ah maa jaawale waay. booy may ma jàmm ah. booy may ma jàmm de. suñ bi waxal bi ma fekkee ma tëdd mu ni ma banque la jëm parce que damaa boole woon ak bàyyi nee na ci ay kàcc waxi kese boole wu ma kenn mu ne timbre la war a jënd naa ko àll ñeenti junni ma jox ko sama vingt mille francs maa ngi koy doog bët te nag kër ga nga ne woon kër goo ñu taxawoon dafa am ay caméra surveillance benn bi ci yow la lars benn bi ci man benn bi mo séré bi séré bi malay jox ñent junni ñu ngi lay gis. te kooku capitaine la attention la koku capitaine la dalay ñëf ci giri bi légui élément yooyu ñëw. ki limi wax deug la wala dëgg la kay. way mais ban deug man ki dama banque do gis c'est la première fois ma gis ko. yow yow Abdou quand est-ce que tu vas arrêter de mentir dans ta vie. voilà. yow yow c'est quoi ton problème. triandé kese loolu dong nga problème amul leneen yow Abdou ni nga nar a sa Aduna. liggéey naa ba sonn jox la amoo jom yëkkati naa xaalis jox la nga liggéey amoo jom mais Abdou kañ ngay changé yow bu dul jigéen ñi yaa ngi arnaqué non man man sama xaalis na ma ko kii jox laa la wax man j'arrive pas eh, à comprendre boy bi wax nga li ngay wax ba pare loolu du problème ñaata la xaalis bi xaalis bi xaalis bi xaalis bi kii la ah, ah, ah, vingt mille francs la vingt mille francs plus lii nga xam ni dama koo jëlee fële moom moom junni la muy vingt cinq mille parce que lii dafa diis juróomi junni la ma amel bi eh, yow eh. Eh, yow yow da nga maa bëgg nga noppi est-ce que yaa ngi may dégg amoo lenn loo wax ñax fayda papa amul benn problème mhm. man léegi naa la fay say vingt cinq mille mais wax ci moom na ma yem non man boo leen ma fayee rek saayra quoi que moom mi moom mi amel na bàyyi trois cent mille loolu dox sama nëw juróom benn fukki junni yow père yow def bii da nga gëm kii maa de mataraak bi laay waaw doy kan ngay changé eh, yow yaa dugg ci baay laal nga laalaate billaay boo xamoon baay doo ko turiyaan ñëwal yow libéré trois cent mille yooyu nag boo ko fayul ma xamante ni si doo du fay wala dinañ la tëj ci prison bi ndax du ma ko fay waay fii dëngal kii vingt mille nga vingt cinq mille waaw vingt cinq mille la wax nga jox ma sa numéro ma envoyé la nga bañ tey nga bëgg a jël sama numéro xoolal mënoo loolu lépp c'est des détails xam nga ni man ñàkkuma fayda yaa may dégg li may réglé moom après dinaa ko réglé loolu lépp garaawul après nga xool dindil ni génneel numéro génnee ko nga nga nga ko ci sa téléphone bu ñu doon def nii léegi dinaa la envoyé léegi sax sa xaalis di nga ci jot incha allah te benn benn benn benn conseil laa lay jox mhm. bu beneen yoonatee koo leen xamul leen proposé jox ma dix mille ma jox la cent mille jox ma cinq mille ma jox la mille bu mu leen dalal ndax arnaqueurs yi dañoo bari ci Sénégal nit nag du ko gis ku nekk mhm. rek daal koy jox sa alal maa ngi jégalu bu baax nag bañ a tooñ ko gën jégalu moom bañ a tooñ ko gën loolu lépp dëgg la bu doon mën ak man dong kenn du ko arrêté mais classe bi moom eh, père dama sa yoon macha allah yow moom nee nga sa àdduna danga koo jël rek daal di jël ñàkk jom bokk ko te doo ko may kenn Abdou ku ma yeb yaa tax mu yeb ma sama kër gi doomu aadama musu fee taxaw di ma fayeeku ñaar dërëm mais tuutil nga ma ñàkkal nga ma fay fayda man nag maa ko def man mi nga xamante ni damaa fekk góor gi gën a yées ci àdduna ma ne damay séq ak moom relation dimbali ma te lenn nag laa lay xamal entre nous deux c'est terminé à partir de tey non non non mais demal sa yoon te sama kër bu ma la fi gisati nga teg sa tànk demal maa ngi lay bàyyeeg bàyyi bàyyi moom duma ko fay ñaar dërëm di ko fay baa nga dugg ci prison mais da ngay kafa la may ma sama jaam leen naa de